ndax da loo xam ne dafay gën a unir dafay gën a solidariser euh, maanaam relation yi nekk diggante travailleurs de ciment du Sahel waaw c'est une vraiment grande journée pour euh, les travailleurs du ciment du Sahel et la direction générale ñu remercions beaucoup ñu ngi gërëm bu baax a baax amicale bi parce que ñoom lépp ñoom la ñoo def lii parce que lii dafay gën dëgëral encore relation yi am diggante travailleurs ciment du Sahel et baax na ñu ngi defar suñu yaram bu baax a baax te ñun aussi suñu biir ñu ngi gën a xamante lii lu rëy la ci travailleur ñu bokk benn suba boo xam ne ñun ñëpp ñoo fi ne defar suñu yaram gën a xamante et ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ndax événement bi di ngeen defar ko ndax tey ku gis ku nekk fii dina xam ne lii lu rëy la kanam yëpp a ngi leer maanaam lépp lu nekkoon pression lii dafay mën a décompressé nit ki ba pare mu tombe ci bés bu mel ni nii di week-end xam nga lu rëy la pour ñu marché bi c'est une très très bonne chose affaire bu baax la ndax des des bailleurs yi liggéeykatu ciment du Sahel ñoom ñëpp ñu gisee personnel bi tout le monde ak suñuy dirigeants yi amicale bi nag moo ko organiser seen première et affaire bu baax la loo xamante ne lu nar a la di ko def chaque année occasion la aussi pour côté pour may suñu santé parce que on est tout le temps assis dans les bureaux lii nag daf ñuy daf ñuy jox occasion boo xamante ne dinañu dox dox ñëpp xam nañ ko dox lu baax la lu ñu recommandé la donc euh, dafay di loo xamante ne daf ñuy may rek ñu gën a nekkaat en forme gën a mun a liggéey am ay résultats yu baax dans l' entreprise ciment du Sahel xam ne ni ngeen ko xamee ciment kii la cimenterie bu mag la donc euh, lii day wane nii rek ciment du sayel mi ngi fi ñëpp a ngi fi kenn ni ñu koy waxee rek tabax bu baax ci ñun lay dooree waaw. Ndiak parce que ñoom ñoo organiser manifestation bi presque dañ ñu bett sax wax ñu ko mais lépp lu ci war ñoom def nañu ko. te ñu ngi di leen gërëm bu baax a baax di si au nom direction générale ak l'ensemble personnel ciment du Sahel ma wax ne euh, manifestation bi lu rëy la pour ñun ndax euh, moment la boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi nekk fii kenn ku si nekk defar nga sa yaram d'abord parce que euh, vie société industrie dafa metti waaw mu ñu dajee ñun kenn ku ne ku gis sa moroom dina xam ne lii neex na waaw lu neex la te loo xam ne dañ ko war a def tout le temps buñ ko mënul def benn yoon par weer ñu def ko au moins fukki fan ak juróom yu nekk ñu def ko parce que moment la boo xam ne dafa rëy ñun ñëpp ñu toog benn place di waxtaan ku nekk di ree loolu dafa rëy ci ci ci ci ci entreprise et moo tax ma encore une fois maa ngi remercier amicale bi ñu gën leen sumb ñu gën a def action yu mel nii lii benn la rek mais am na yeneen yoo xam ne mën nañu def loo xam ne day dajale entreprise bi loolu lu am solo foo xam loo xam si loo xam ne nit ñi dañuy booloo nit ñi dañuy daje nit bu ñuy daje nag a ah, yaakaar naa ne nga gën leen defare loolu mooy gën a yokk yokkute la ci ñëpp yokkute la ci ñun yokkute ci entreprise bi. Euh, randonnée pédestre bi am na ñaari njariñ xam naa am na yeneen sax mais ñaar yooyu rek laa laa jàpp ni pour euh, mettre ko en exergue pour fësal ko benn bi mooy euh, dina tax. Euh, population bi constituée société bi yëpp donc euh, seen diggante gën a ratax ñu gën a xamante peut-être am na ñoo xam ne fii parce que bokkuñu kaar wala parce que bokkuñu fu ñu dëkk xëy na xamantewuñoo wuñu ah. y en a certains qui se qui se pour la première fois en tout cas pour euh, de façon aussi agréable di dox di di di di di di di doxantu am na fii ñoo xam ne xam naan tey la ñu am occasion xëy na tur yi di nga leen xam mais tey lañu am occasion gisante et fii mu nekk nii kenn xameewul kan mooy directeur kan mooy euh, chef de département kan mooy euh, ban euh, kan mooy lan ci biir société bi loolu day wane ni que donc ci donc euh, nit ñi dinañu mën a ci ci euh, manifestation bu mel nii dina mën a fexe ba benn esprit de camaraderie maanaam ab diggante yu neex daal créé wu entre personnel bi et je pense que aussi dañuy wax ni que jàmm de je pense que si si mooy départu lépp. quand bu fekkee ni ñëpp seen xol euh, euh, donc euh, kontaan nañu ñuy foo di ree di def seen liggéey peut-être yàlla aussi daf ciy def barke parce que yàlla je pense que jàmm la bëgg bon dañ koy wax loolu moom xam naa ne borom xam-xam yi ci ginnaaw mën nañ ko certifier deuxième élément bi mooy que sport tàggat yaram la te tàggat yaram foofu mooy point de départ wu wér-gi yaram donc le sport c'est donc le, le, le point de départ de la santé voilà loolu mooy ñaari éléments yi nga xam ni moom la jàpp daal xam naa am na yeneen euh, ginnaaw loolu nag euh, félicité ñëpp ah remercier leen vraiment. bëgg nañu mu sax dàkk nag. incha dinañu def suñu kemtulaay kartan pour donc jàppale ñi nga xam ni ñoo koy organiser. merci. salaamaaleykum mbooloo mi nuyu nañ ñëpp sant nañ ñëpp. vraiment kontaan nañu parce que lii ñu def c'est une première édition et que vraiment gis nañ ni participation bi personnel bi yëpp ñëw nañu directeur yëpp aussi ñëw nañu donc vraiment mënuñu suñu kontaante mënul gën a rëy lii kontaan nañ trop marche bi ça s'est bien passé du début à la fin amoon na rythme vraiment liñ ci jublu woon muy côté sport bi yaakaar naa am nañ ko parce que agsi nañu quand même ak euh, benn benn benn battement de cœur donc loolu la ñuy jublu ci sport ci beneen wàll bi aussi tey gis nañ ni vraiment personnel bi ñëpp ñëw nañu ñëpp ñëw nañu usine ba ña fa des mooy les personnels postés donc li may wax mooy le sport outil de cohésion la rawatina biir ciment du Sahel donc li may ñaan di ko ñaan encore une fois la direction générale mooy que ni lii ñu def tey ñu pérenniser ko pour que chaque année à la même période à la même date ñu def randonnée boo xamante ni nii lay mel boo xamante ni yeneen édition yi ñëw ñoom ñooy gën a ñoom ñooy gën a rëy ñoom ñooy ëpp réussite bien que quand même bii réussite bi vraiment su ma ko doon xayma en taux je disais que je dirais que réussir na à 100 pour cent maa ngi remercier aussi la commission sportive la commission d'organisation le comité directeur de l'amicale le bureau exécutif de l'amicale vraiment on a travaillé parce que randonnée bi on l'a organisée en une semaine lundi dernier lañ def la première réunion donc c'était pas évident mu am réussite bi parce que on l'a préparé en une semaine leen di lañ def première réunion bi jeudi ñu def la réunion de coordination donc vraiment may ñaan ngeen tàccu le comité d'organisation remercier ñëpp di aussi remercier le président directeur général monsieur Latfala Layus parce que bi ma ko waxee randonnée bi c'était feetu fin d'année bi dama ni ko président dañu bëgg a organiser benn randonnée pédestre mu ni ma fan ma ni ko à l'usine mu ni ma fu ñuy démarrer ma ni ko pharmacie euh, pharmacie bi mu ni ma noo foofu dafa gàtt def leen ko ngeen démarrer croisement route nationale man dinaa ñëw donc c'est un problème de calendrier de dernière minute moo tax ñëwul vraiment randonnée bi aussi participer na si joxe na ay t-shirt joxe na aussi xaalis pour frais organisation vraiment président ñu ngi koy remercier di remercier aussi le directeur d'exploitation monsieur Mamadou Ndiaye qui représente, qui est venu à son nom et qui représente aussi le président directeur général. di remercier aussi tous les directeurs parce que directeurs yëpp participé nañu. di remercier monsieur Salam Thioune qui a fait partie du comité d'organisation di remercier monsieur Youssou Sané di remercier monsieur Bakary Camara di remercier monsieur Diallo di remercier monsieur Souleymane Ndong di remercier monsieur Aliou Sarr parce que moom moo nekkoon suñu interlocuteur entre l'amicale et le président donc vraiment affaire bi daal pour mu réussir ñëpp a ci jàpp ñëpp ñëpp ñëpp a ci jàpp di remercier tous les randonneurs tout le personnel ñi nga xam ñëw nañ ñoom ñëpp vraiment di leen remercier parce que li ñu def nii dox bi ñu def nii c'était pas évident yàlla dimbale nañu aussi évacué wuñu kenn ambulance yaakaar na les sapeurs et les infirmiers vont rentrer bredouille alhamdulilah merci beaucoup merci